ci secteur boobu est-ce que sénégale lañ am nañu benn patriotisme bi pour mën a dem ci sursaut boobu noonu loolu c'est à régler. d'accord mais mais man defaatu li ma lay doon. vas y que tey damay mooy décision président de ci li nga xam ne moom moo di audit du personnel. Mhm. sur l'administration parce que audit boobu. su fekkee ne si loolu defoon nañ mais bii dafa gën a récent. Mhm. te comme dafa joxe ay euh, instruction que nañu audité waat li nga xam ne moo di le personnel de l'administration publique. Mhm. donc loolu njeexital gi mooy. su fekkee ni audité nañ gis nañ ni fi mu toll nii am nañu doon abusé ci système bi am na des recrutements abusifs am na ci ñoo xam ne seen nii fay nañ leen te liggéeyu lu ñu ou bien doon lañ def ay détournement qu'il y des sanctions ñi nga xam ne seen ni ñoom il savait que ni amuñu benn fonction bu ñu occupé mais dañu doon def détournement ci li nga xam ne moom moo di alalu askan bi ñu non seulement le recruteur mais la personne bi nga xam ne ni moom moo d'accord ñu jël ko di ko fay mu tëdd te defalul dara état bi kooku dañ ko war a sanctionner. donc man loolu lay xaar ci le initiative bi baax na. mais na dem jusqu'au bout fictif personnel fictif c'est personnel li nga xam ne si moom moo di les montants déclarés te ñu gis ko ci yenn entreprise or du reflété wu ci le personnel yi nga xamante ne ñoo nekk fii même ci rapport OFNAC bi passé 2021 bi am na yenn euh, organes yoo xamante ne dañ ko fa nemmeeku ay salaires yoo xamante ne dañ leen di fay te ñu ngi tëdd seen produit suñoo ñëw euh, mais produit démb bi ñu gisee li nga xam ne si moom lañ ci publier mm-hmm. mais on a tombé des parce que loolu mënoo ko xalaat. Mhm. donc du ñu wax ni publication wu euh, euh, enquête Prodac yi. Mhm. lu négatif mi ngi ci. mais lu positif lañ ci commencé gis donc am na acte yoo xam ne su fekkee ne seeni ni nos autorités joxe nañ ay instructions ñu def ko ñu gis ni kat lii effectivement. lu ñu ko waroon def lu yàgg la c'est à saluer. attention avec ces rapports. non non non attention avec ces rapports. juste le fait que les instructions le président. ça ne change pas notre quotidien. non mais jiital ko prioriser ko. xam nga mhm. ñun suñu lu ñuy suñ luy suñu priorité. luy saafara suñu jafe-jafe gis nga ces rapports là sont faits pour être euh, étudiés et donnés suite à ces rapports par les l'autorité judiciaire. Mm y a une autorité judiciaire rapport yi di ko jël ci di ko publier ci espace public dafa mel ni un os à ronger bu ñuy mhm. jox nit ñi mhm. loolu ñi fi nekk pour mën ci liggéey li ci war ñu def ko ñu ngi fi mais bu mu doon lu ñu war a vraiment bu ñu occupé bu ñu xam nga lan moom changer suñu quotidien xam nga lan laa ci saluer mhm. le fait que les sénégalais amoon nañ ay doutes sur certains dossiers et que ces dossiers là ñu ne dañ ko rendre public bien que chaque année Euh, les codes de contrôle dañ ko doon joxe OFNAC daan na publier mais cette fois-ci le fait que mu nekk lu accessible les Sénégalais dañu communier seeni effort pour que l'information passe et arrive ci nopp ku mu neex wala ci bët ku mu neex à travers les réseaux sociaux mm. donc c'est à partir de là lay wax ne décision présidente c'est à saluer léegi nag la suite à donner à ça ci moom lay des mais aussi mu bañ a nekk chasse aux sorcières boo xam ne si fa mu jëm. kon euh, on ne peut plus. nga xam ne moo di l'autorité judiciaire. Euh, voilà ce n'est débat boobu. parce que ñoom ñoo war a euh, saytu li nga xamante ne moom mooy. kii bi mooy justice on a le président il a demandé à ce que mu génnee rapport cinq années yu mujj yi et d'ailleurs ñu ngi wax ne ne rapport cour des comptes génn na mais pour nga gis ko instant bi c'est tout un problème. donc beaucoup mhm. suite. Mhm. xamante ne nii les sénégalais dinañ accepter loolu parce que mënuñu def liggéey bu toll nii nga joxe ay instructions. Mhm. ñu saluer ko amul de l'opposition ni de pouvoir ni ku mu doon koo xam ne saluer leur décision bi. léegi nag la suite à donner à ça. Mm -hmm. c'est pas parce que euh, président nouvellement élu la rek. que toute décision dañ koy jël di ko joxe di ko teg ci place publique bi. Mhm. après dans deux ans ñu gis dafay mel ni la même chose non. rupture. rupture la ñu wax et rupture boobu nañu ko jëfee. ñun ci loolu la jën xaar xaaree wuñ leen ci leneen lu passe rupture et que mm-hmm. à compter de maintenant. Mm-hmm. lii am am na ñu ngi ci seen première mais boo xam ne dinañ jot ay doléances. Mm-hmm. doléances des travailleurs les mouvements syndicats et autres. léegi liñ ciy xaar mooy fii ak. lan le mois de mai prochain dinañ leen juger lan moo ci dox lan moo ci doxul lan lañ ci promettre lan lañ ci def ak ñu ci deful. le secteur privé ndey c'est vrai. mais le patronat dañu soxla soutien bu extraordinaire et que c'est le moment parce que euh, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud la ñuy wax. léegi nag li am nii mooy le patronat da nga leen di dooleel. Mhm. ces deux premiers mois avant la déclaration du politique générale du premier ministre. Mhm. war nañ mën teg seen loxo lu dëgër ñu commencé mën a def. ay ay ay création d'emploi mën a fexe recruter les jeunes. Mhm. parce que léegi ne li ñuy wax les jeunes moom mooy da ngay gis ko am 40 ans 45 ans bientôt mu dem retraite et mësul xam lan mooy salaire. Hmm. mësul am liggéey. moo tax bu ñu toogee ces personnes là lañu considéré comme chômeur mais ñooñu il faut nga teg seen loxo lu dëgër. Hmm. lu gaaw parce que ñooñ n'ont plus le temps. dans cinq ans c'est fini parce que après cinquante ans mais kan moo lay jël donc course contre la montre moo fi nekk moo tax et pour loolu mën a am il faut que le président de la république il faut mu gaaw. et gaaw bi nag ci lañ koy ñaax moom mooy il faut toujours nga tenir en compte que les sénégalais souffrent et que ñàkk liggéey bi ñàkk. ci gaawantu boobu ndax du def euh, njombe ci wàll woowu parce que boo bëggee ñëw. en un mois rek nga bëgg tout lépp nga mën ko ñoŋal est-ce que dina possible. ci jamono joo xamante ne ne on a vu que ne ne secteur yu baree bari dañoo nekk ci ay jafe-jafe est-ce que du doon ay décisions yoo xamante ne dañu koy jël comme ça rek après ñu jàll ci leneen. Fatima on espère que duñu créer désordre. d'accord. parce que fi mu toll nii xam nga Sénégal yi actuellement euh, le nouveau gouvernement lépp lu ñu def ñu ne baax na mais ci kaw baax na boobu tey jii mën naa cee d'accord et Fatou mën na bañ a ànd ci loolu. Mm-hmm. ba mën na ci maandu. et que cela ne veut pas dire que ni à l'unanimité dañuy tàcc parce que bu ñu fàtte ne am na ci Sénégalais yi ñoo xam ne si ne nii. Mm-hmm. ils n'ont pas voté pour Diomaye. Mm-hmm. moom mi ngi am cinquante quatre virgule nangam pour cent. et que li des. les 46 pour cent mhm. sont des Sénégalais. Et il faut les mhm. respecter. Et il faut les respecter. Mhm. am nañ droit de regard surtout ils nous ont le droit de critiquer toute décision. bu le président de la République jël comme ñoom ni ñu ko doon defee ci la ñeneen ñi. donc l'idéal mooy. bàyyi libre choix aux Sénégalais. ñu observer ku bëgg a critiquer critiquer. ku bëgg a jël position ku bëgg a tàccu tàccu parce que c'est ça loolu mooy charme démocratie Sénégal. loolu moom mooy doxal donc léegi nag on est li Sénégal yi soxna li gën a immédiat mooy. ñett point benn baisse prix du loyer. augmentation de salaire. création d' emploi. ñett yi moom mooy urgence bi lépp loo mën a jël ci ay mesures. dinañ tàccu ni dinañ ci bàyyi xel mais la finalité li ñu lay wax mooy bu ñu toogee ba jant bi so nañ tàccu nañ fecc mais bu reer jotee ñu ne la anam donc avant que loolu nag di jot li ñuy ñaan le président moom mooy na jublu ci xëyu ndaw yi. na def priorité ci li nga xam ne seen moo di wàllu foncier parce que aussi avantage bi ñu am mooy ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo diriger le nouveau gouvernement la ñoom ay acteurs lañ yoo xam ne ci wàllu foncier impôt fiscalité c'est leur domaine tout ce qui concerne l'habitat xam nañ ko seen domaine la xam nañ xaalis fu mu jógee xam nañ naka lañ ko war a mën a amee ak naka lañ ko war a mën a utiliser loolu lañ am yaakaar donc nag ñi ngi leen di xaar ci rendez boobu mooy fi ñu toll nii tey le 30 boo demee démb ci impôt yi impôt boo dem da ngay fekk mu fees del mm-hmm. ñëpp a ngi daw man démb su ma si di lan moo xew après su ma si rendu li nga li nga fi indi moom la fi indi ñëpp mooy lan parce que fin du jot na entreprise yëpp ñi ngi daw di def di dem di seen impôt donc là da xam ne si ni am na benn déclic bu am ci bopp sénégalais yi. Mhm. les chef d' am na lu xew xam nañ ni ñi fi nekk nii. Mhm. ay agents lañ yoo xam ne si ni xam nañ lan naka la entreprise yi di doxee. d'accord donc ku ci yéex tuuti ñu fëgg sa ndigg mais est ce que dañuy toog ba loolu dal seet ko mais liñ ciy jëlee ci ay koppar. Mhm. ci yan côté lañ ko war mën orienté vu que fi mu toll nii question d' emploi urgence bi mooy. régler le problème des travailleurs. créer emploi donc ce premier mai j'espère que ni dina susciter beaucoup d'intérêt ci tey ji propositions yi nga xam ne moom la le président war a amal wala le premier ministre wala comme ci mën doon mais quand même ñu wax ak les Sénégalais tey lu ñu fi jógee loo xam ne c'est dans deux mois ci loolu lañ jëm c'est important la solution lan la a doon pour jàppale liggéeykat ñu mën a recruter ay ndaw waaw pour la solution bi mooy il faut que ñu euh, bañ a nekk ci détails yi hmm. te nekk ci li nga xamante mooy jafe wu sénégalais yi xam nga par exemple loolu la ñuy wax ci plateau bi boo xoolee mais en réalité dañoo sentir ne on a comme l'impression ko ñi nga xamante ñoo war a jël ay décision les preneurs de décision souvent dañuy am jafe-jafewul jël décision parce que Sénégal décision bëpp c'est calculé Sénégal mooy fonctionnement décision booy jël c'est calculé alors que lu ñu wuuteeg tubaab bi mooy tubaab bi buy jël décision moom du calculer ba xam ça arrange li nga xamante ne mooy cadre euh, te déranger ki nga xamal mooy euh, soxna Ndeye Fatou. Mhm. tubaab bi bu jël décision da koy jël dans la normalité de faits mooy lii moo war a am nañ ko def. Mhm. mais Sénégal fi mu ban décision nga mën a jël te doo du enseigner dérenseigner le. te te nag ñu ngi seetlu ne boobu ba léegi décision yi njël yëpp ay décision calculée lay doon mooy dañuy xool ba xam est-ce que bu ma ko laalee bu ma ko gis nga loolu boo koy topp. Mm. fii ba cinq ans doo jël benn décision. loolu moo daloon Macky mooy da doon ne. saa bu laalee benn mbir mën na am moom ñi ko jàppaloon ba mu ñëw au pouvoir ñoom lay laal mu jéem a xool ne kon naa stand by décision bi jël décision ñema